waa Sénégal xam ngeen ne kii kenn dootu ko présenté moom mooy euh, toj seen TV ah tous les matins macha allah donc mu am communication boo xam ne bu dal la gars yi daal xam nañ ko ñu ngi lay nuyu bu baax Asma di la bàyyi nga nuyoo ñi nga xam ne ñoom ñoo lay seetaan. maa ngi nuyu bu baax a baax waa Sénégal di leen ziar ah, di wax ni rek continuer de follow Sénégal parce que fii la information bi di baaxee. macha allah mais sa sañse baax na dèjà balaa may kii béy di na la ah nga may ko benn tournée bu nice ku la kat moo fi jaar dèjà. alors il s'appelle Momo Design c'est un jeune boo xamante ne mat na askanam Sénégal yëpp xam ko il m'a fait la robe en 24 heures macha allah il est excellent il est talentueux voilà moom moom la. nan nga édition Only Woman bi édition bi ak bonne relation nga am ki ki nga xam ne moom mooy euh, l'initiateur alors Saïdou l'initiateur c'est un bon ça c'est un bon monsieur hein, très correct euh, qui euh, on n'a pas d'affinité mais on se respecte mutuellement parce que c'est pas la première édition bi may bokk daaw bokkoon naa malheureusement ci diggante bi sama yaay décédé donc bi mu génnee àddina euh, j'ai dû ne pas pu venir prendre mon prix c'est pas grave. Alors, j'ai pas pu venir prendre mon prix et aujourd'hui, quand même, je tenais à honorer, euh, à l'honorer de ma présence et à venir. Voilà. nan nga gisee initiative bi déjà daaw ko def mois de mars ren daf ko def mois de mars mu tombe euh, mois bi nga xam ne dañ koy jagleel jigéen ñi. Only Woman Awards. mars c'est le mois des femmes dans le monde donc je pense que aujourd'hui à partir d'aujourd'hui na ko capté fii. bu mu demee ci ay décembre bu mu demee ci ay janvier bu mu demee ay février parce que voilà yàlla moo ko wuy si man parce que looy woote woo euh, bu yàlla nanguwee rek dalay fekk si et donc aujourd'hui il avéré que le 11 mars bi la ko yàlla dogal ni la koy mën a amal c'est très bien c'est une très belle initiative c'est une très belle chose ñu gis la chaque matin ah ci suba teel macha allah ngay def euh, émission bu doy waar mais tamit nga nekk présentatrice bi di ji jiite ay jigéen ak ay góor tey en tant que journaliste présentatrice euh, yan euh, problème ngeen di gën di jànkonteel ci li nga xam ne ne parce que ci weeru jigéen ñi lañ nekk donc aussi dañuy xeexal jigéen ñi yan problème yi nga xam ne lañ jig nga gis ni que jigéen ñi souvent dañ koy jànkonteel parce que nag nekk leader yenn saa yi day xaw a metti oh machallah la team Subatel on a réussi à vivre réellement li nga xamante ni mooy famille xam nga famille ngay ngay yeew tey sa sœur du la neex kanamam du la neex après ngeen jàll si leneen ngeen waxante ko wala tafante après jàll si leneen on a une complicité boo xamante ni macha allah on est comme une famille aujourd'hui kenn ko ci nekk di taxaw sa morom te prix bi tey ñoom ñoo ko moom man xëy na la ñu mën lañ si mën a tibbi mais euh, équipe bi moom moo ko moom c'est une très très belle équipe qui a réussi à, à vraiment euh, avoir ce lien fraternel là on se dispute comme tout le monde, on se dit nos points de vue, après on passe à autre chose. Franchement, on passe à autre chose. Après ça, dañuy wootante waa daway yul du ñu waxtaanee lii suba donc macha allah. waaw c'est vrai donc kontaanoon nañ trop ah di la di la dalal fii ci Sénégal nga ñëw ci événement bi lan ngay wax ñi nga xam ne ñoom ñoo lay seetaan bëgg la di la follow aussi di la topp chaque suba teel. di leen wax je vous aime I love you je vous adore merci beaucoup merci c'est parce que chaque jour damay gis seen affection seen cofeel et que pour man je suis absolument rien ni personne d'ailleurs euh, nit kese la donc euh, bu ma yeggee fii ñoom ñoo tax. di remercier encore une fois bu baax a baax sama PDG avec encore toute l'équipe de D-Média toute la rédaction de D-Média ndax kenn ku ci nekk am na loo apporté ci édifice bi en tout cas merci à tout le monde shukran merci alors mbokk yeeg xarit yi ñu ngi jàkkaarloog Nabou Leye moom nag elle n'est plus à présenter ci réew mi elle fait partie des nominés ñëw ci Only Woman Award bi Nabou ñu ngi lay nuyu bàyyi la nga nuyu ñu lay seetaan. maa ngi leen di nuyu di leen ziar. di nuyu waa Sénégal di nuyu waa monde entier di nuyu fan su Nabou Leye fan su Soukeyna mami Fat Samb et tout maa ngi nuyu ñëpp. tu fais partie des nominés. Euh, mon Dieu, mon Dieu, que de méta, que de méta. Il faut être fort hein, pour tenir ici. Euh, mais hein? de euh, révélation 2022 je pense. il faut avoir une maîtrise de soi. waaw cinéma bi. bëri nga ay naaw la yoo ko bokkal. c'est des actrices yow bi nga ñëwee ci ci milieu cinématographie yàggul yàggul yàgg na mais teewul sénégalais yi adopté nañu la ñëpp bëgg la euh, naka gisee nga feeñ rek ñu bokk bokkale ci nominé yi te am na ñu lu ci jiitu amuñ chance bokk ci nominé yi. waaw sant yàlla rek li ma wax sant nee euh, la fierté la. parce que nit ki nekk amoo lu dul ci euh, sa liggéey tey jii ma nekk danseuse ma même temps actrice di jouer ay série ba ñu gis ma ci ma prouvé ba ñu boole ma ci lii donc fierté la dama koy sant yàlla ñëw fii représenté aussi dans ce. waaw parce que. où est-ce a représentant de Yacine dafa tëggul. où est-ce mel nii lan la mën a apporter artiste professionnellement. c'est vous madame. ba. xam nit ku nekk looy liggéey moom bëgg nga cee am ndam. donc tey jii nga ñëw ñu jox la trophée boo xamante ne ci sa liggéey ci sa ñaq lañ ko gisee ba apprécier ba mu jaral leen. voilà ñu yëkkati noonu noonu jox la ko donc ndam la quoi. on va vous yi nekk ci milieu bi te milieu bu métti la. Mhm. nga leen di sargalee ci weer bi wala nga leen euh, comme li ma leen di conseillé tous les jours rek. fulla fayda jom. waaw benn liggéey ba nekk liggéey yëpp baax. la pêche. dañuy dañuy dañ leen wax ñu gën a góorgóorlu rek. gumba taxlu nag. te liggéey rek da xam ne moom liggéey daal mooy dimbali ku nekk. fan nga jox rendez-vous sa parti bientôt deuxième saison am prise. deuxième saison day ñëwaat. bientôt incha allah ñu ngi a def jabar de. frère la. Ah? sama frère la sama frère la à normal quoi en fait mais ci série bi sama copain la donc bu taxee ci série la may woor mais comme taxagul ci série bi rek waraguma. parce que waaw waaw waaw mais xam dañ doon trouvé noonu rek mais sama frère c'est mon ami vraiment. merci merci beaucoup. ba nga gën a sentir sa série bi walla fecc bi. ñaar yëpp ndax li may def dama ko mën. waaw li may def dama ko mën boo ma woowee ci fecc mu feccal la ba mu neex. boo ma woowee ci théâtre mu joué la ba mu neex donc ñaar yëpp samay liggéey la ñaar yëpp dama ci fier voilà mi ngi noonu. tey boo doon jox conseil ndaw ñi nga xam ne tey ñoom ñoo nekk ci fecc bi ban conseil nga leen di jox ndax nag gars yi xamee nañ la si fecc bu set macha allah. waaw mhm. ah, waaw mais respecté ko rek liggéey moom liggéey la. liggéey liggéey la man nee naa lépp lu may liggéey dama koy jox àqam dama koy jox gëddam ndax tey jii bu ma taxawee sur chaîne bête de chaîne laay nekk man du ma gis kenn parce que loolu noonu may def moo may may lu ma yóbbu suñu kër. moo may may lu ma dundalee sama yaay lu ma jàppalee sama yaay ak ñu topp sama ginnaaw donc voilà boo boo fa jógee nag moom boo nekkee sa biir kër sa biir kër la bokkul daal en fait donc ñu gën a góorgóorlu rek liggéey la ah, liggéey la donc nañ liggéey rek buñ paree nag après ku ci nekk bon mooy loolu daal mais nañ respecté liggéey bi teg ko ci yoon jox ko gëddam parce que lépp looy ñàkk mu lay may rek danga ko war a respecté danga ko war a jox gëddam voilà. Fatou Laobé bés bu tijjee école lëmbal di nga fa ñëw di jàngal xale lëmbal ndax bëgg na tijji école di jàngal waaw bu fekkee ma am temps rek parce que kooku sama yaay la référence la te ku baax la donc bu tombeek ma am temps rek damay dem jàppale ko incha allah. alors mesdames et messieurs je suis en face avec Kany moom aussi bokk ci actrice yi nga xam ne sénégalais yi nañu ko à travers liggéey bu am solo bu muy def réew mi yëpp bëgg ko nag euh, di ko suivre ci Karma Kany ñu ngi lay nuyu bàyyi la nga nuyu ñu lay seetaan. maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di fay aussi. en tout cas en tout cas c'est très bien c'est très bien fait et vraiment maa ngi leen di gërëm ci concept aussi ci ñi ko xalaat ñi ko créer loolu noonu yëpp.

en tout cas sama réalisateur jàppale na ma bu baax El Hadj Cissokho jàppale na ma bubaax parce que au début bi ñu ma waxee rôle kan yi dama xawoon tiit par rapport ak sénégalais yi ni ñu am préjugé ak rôle yi ngay joué mais quand même jàppale na ma bu baax sama famille jàppale nañ ma bu baax gis naa ne aussi sénégalais yi apprécié nañ rôle bi. Euh, waaw maa ngi ci beneen série mu ngi ñëw. mu ngi ñëw non ak beneen boit mu ngi ñëw

je suis en couple. <laughs> mais dama seetaan def man personnellement ci vidéo dama ko sama ma yar sama maam sama dama teel a gis sama yaay di sonn di liggéey bi ma juddoo la sama yaay bàyyi jàng. di dem commencé liggéey pour mën a daan dooleem pour mën ma fayal école bokkuma woon ci xale yi riche mais quand même mosuma ñee sama benn moroom école donc loolu yëpp dama ko gis ci samay waajur looloo tax munuma munuma def loo xam ne suba dañ may xool di loolu moo tax damay jaay añ damay añ du <laughs> ah, day des des fois sañ day des yow ah. sama kër mais damaa bëgg ànd ak Malick ak gars yi añ si. sama numéro boo ma woowee dinaa la livrer añ loolu du benn problème. Ah livraison laay def waaw. d'accord maa ngi doon société bu mag. amiin amiin amiin. merci <laughs> amiin merci beaucoup au revoir merci.